dal leen ak jàmm mbokku internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo jox leen ay xibaar yu xamante ne ngeen koy xaar chaîne bi wax leen ne temps yi gisoo leen ma publicité maillot yi mais maillot yu bees yu club yi am na ballon yi am na ballon original si ay prix yu abordable franchement du leen gaañ muy ñii nekk fii ci réew mi ak bitim réew au 77 352 31 01 di remercier ñii di jënd boobu léegi fii ci réew mi ak bitim réew donc maillot yu bees moo ngi fii maillot club Sénégal moo ngi fii blouson Sénégal yëpp moo ngi disponible au 77 352 31 01 mbokk yi Bokki yi xibaar yi nag euh, dañuy doxantu feulé ci Ligue 2 française euh, bu ñu demee su Ligue 2 dañuy wax ci équipe bu Wadji Wadji nak il est en forme hein, Wadji xamatoon c'est pas mal maa ngi fàttaliku saison bu ñu soo commencé gars yi di critiquer di ko dal bu baax fofu sa France Ligue 2 mais tey ji ñaari bi la dugal muy 12 bi yu mu dugal donc c'est pas mal pour première saison ak équipe bi di Saint-Étienne 12 bi deux passes décisives pour Ibrahim Wadji Ibrahim franchement machallah allah ku fàttaliku ko cëng si jafe-jafe yu yu mu nekkoon bii ëpp solo wala bii ëpp importance wàjj bokk na si ñi ko dugal donc saison pour man c'est c'est bien pour euh, c'est pas aussi évident Ligue 2 française dafa métti doo ñëw rek dugal say bii comme ça donc Ibrahima wàjj bu ko defee dañ ko wax félicitation naka gaynde fi nga ko jàppal nii foofu la donc voilà waa seen dina am contentement bu baax euh, si yow et espérons ko di ñaanal l'année prochaine lii di Saint-Étienne këli ñëwaat lii di Ligue 1 française na na choc Saint-Étienne Marseille choc Olympique Lyonnais Saint-Étienne derby boobu ñëpp ñoo ngi koy xaar donc Ibrahima Wadji j'espère que dina mën a participer si li nu mel. beneen match bu xamante ne dafa amoon solo lool wala ñaari match laay wax donc ay sénégalais di jouer kenn ki di Bordeaux euh, bu bu Badji suñu attaquant boobu ak kii di. match bi xamante ne Sénégalais yëpp ñoo ngi fa ay Ousmane Ba gardien ak ay Sabali bi dugal bii moo dugal bi tey Lamine Camara moo ngi woon ci baa bi donc Sénégalais yëpp match lañ nekkoon mu nekk benn match bu xamante ne nag kii day joué muy Bordeaux kii di joué ak Sochaux Sochaux nag match euh, moo ko fekk dóor dëkkam dóor ko Sénégalais bi moo dugal comme ni ma ko waxee Sabali de l'autre côté waa Bordeaux nag.

day ñëwaat lii di Ligue 1 française Le Havre tamit demagul noonu mais quand même Le Havre aussi tamit euh, bu gagné aussi ñoom ñaar ñoom ñooy yéeg donc kii di Bordeaux c' est le grand perdant aujourd'hui loolu moom ñëpp nemmeeku nañ ko foofu sa France moo tax boo duggee si compte yu Bordeaux dañuy gis euh, supporters dañoo xool bu baax mer bu baax et ça peut se comprendre ndax yàgg nañu nekk si deuxième place bi et que Bordeaux équipe bu mag la ñu bëri ñu ko doon xaar mais étant un sénégalais sénégalais yi comme que euh, Metz la ñu appuyé te dañu am histoire ak ñoom ba ñoom ñoom bokkaande ba tey donc sénégalais yi ak partenariat euh, match ak kii di euh, génération foot loolu lu baax la pour football bu Sénégal. équipe bu ñoom Fongue Mourine di doon joué tey muy Amiens Amiens moo gagné maintenant nag li ñu gën a soxal si match mooy que tamit. yoon moom du bàyyi euh, ndox du bàyyi yoonam la ñuy wax wala doole doxul jàmm koo koy Papis Demba Cissé moom moom màggatagul ba tey moom maa ngi wax maa ngi maa ngi pareegu maa ngi tàccu Ibrahima Wadji si douze bii mu dugal moom douze bii la am tey dafa doublé Papis Demba Cissé tey la gën a tey la waala gën a aay donc moom ba tey moo mën a dugal ay déplacement ay placement am intelligence boobu moo ko permettre tey jii nii ñuy dégg kii di euh, suñu grand attaquant boobu di Papis Demba Cissé tey mu def doublé non soirée bi nag lii bokk na lii si gën a naxari lii si gën a xamante neexul kan mooy abi Beye équipe boobu Red Star franchement euh, ñoo gagné 2-0 doublé de Cheikh Ndoye à un moment ñaari match yi moo ngi doon ñu mag ñi ñuy kër Dunkerque benn moment nii sax score bi ñoom ñoo ñoo yéegoon lii di Ligue 2 française malheureusement malheureusement équipe boobu dafa mujj dugal loolu moo leen yàqal ba malheureusement équipe bu Habib Beye déwén.

mais ñoom moom seen cadre critique dem nañu ba national 2 donc lii moo nekkoon ay xibaar yu xamante ne boobu naa ko partagé ak yéen bàyyi leen ci commentaire yi ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal wax leen ba beneen sur seen football TV.